feeraay day métier mu noobal moo xam ne nii état dafa war a xam lan mooy kan mooy ferrailleur yi ak état bu fi mën ni dafa war a xam kan mooy ferrailleur yi ak suñu jafe-jafe yu gën a tar dañ ñuy néewal doole suñu jafe yu gën a tar tey état ni mu jàppalee étranger yi ah jox leen yenn këyit ba ñuy liggéey ay doomu réew mi doomu Sénégal ñu fi tey bu leen doolee lool li étranger yi di def kon bu ñu ñëwee ñoom dañu demal seen bopp direct dañuy jaar ci ginnaaw ferrailleur yi ndax ferrailleurs yi nag ñu am jom la ñu bëgg a jàllale réew mi kanam kon état moo nu war a may nopp war ñoo déglu mi ñuy déglu sax waaye na ko gën def lu gën may nopp suñu ministre Abdou Karim Fofana mi ngi bootu ci moom mi ngi ñuy déglu ñu ngi waxtaan moom mais nanu gën a déglu jox ñu cër ñu joxee cër rek ñun ah dina am foo xam ne nii ñu dinañ fa yóbbu Sénégal foofu mën a ferraille kese waaye dinañ fa yóbbu Sénégal ci ci financement ah, ci licence yi ñuy joxe ci loo xam ne nii daal ñu ngi doole étranger yu ci bëree bëree bëree bëree bëri ah état xam na fu ñu war a jàppale am na fu mu ko war a jaar te xam ne ñii ay doomi réewam lañu. le message que nous lançons aux autorités c'est d'avoir un regard sincère envers ce que nous faisons nous frères du Sénégal nous leur demandons d'avoir un gain de nationalisme parce que seul le nationalisme peut développer un pays. Quand je parle de nationalisme, je parle de nationalisme économique. On ne peut pas privilégier des étrangers au détriment de ces populations, de ces administrés. je crois que euh, c'est le message qu'on a à envoyer à l'État du Sénégal. Et je pense que c'est un message qui ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. dañu bëgg secteur bi gën avancé Nous avons ñu Fabri ñoo instauré kuréel yi ba yenn ferrailleurs yi jóge ci informel bi nekk formel donc euh, loolu maa ngi ciy sant euh, sunu patron Mounir ak ku nekkoon fii yoo xam ne tam mu ngi ci ba léegi mooy Jimmy Aboris ma nekk léegi place am yoo xam ne yombal na ma affaire yu bari ba ma ñëw man ma koy teg ci yoon di ko di gën a avancé. carte ferrailleur yoo xam ne dafa nekk lu am solo parce que carte ferrailleur tey mooy jox identité nit. parce que nit bu juddoo tay dañ koy defaral carte d'identité nationale te tey ci ta tay ni bo defee buñ waxé carte d'identité ferrailleur moy carte d'identité professionnelle parce que ferraille yo xamné ne métaux la ta métaux prix dafa nek en cours mondial ta dafa dugg ci bourse bi parce que ñun ñep tay mu nek ferrailleur bu ndaw mu nek industrie mu nek dépôt mu nek exportateur dañuy basé wu ci bourse internationale ci prix yi donc tay carte ferrailleur dafa am solo pour parce que booy jëlee métaux yi dafa mel ni xaalis ngay transporter parce que métaux métaux la moom moom ak xaalis la même valeur donc dafay tax ni nga am identité nit ki bu lay jaay métaux boobu parce que métaux tey mën nga ko far ci ci mbedd fekk nit moo ko moom nga ñëw jël ko ñëw jaay ko industrie industrie lakk ko mais depuis un certain temps moo taxit individuel bu ñëwee duñu jaay ferraille duñu jël ci moom kuréel rek la jënd parce que xam nañ ni que y a une carte d'identité ferrailleur il faut pour Taïdini, un citoyen lambda peut avoir une voiture qui veut vendre en ferraille et ça va diminuer les, les, encombrements dans la ville. Il va prendre cette voiture-là, il va la donner à un ferrailleur qui détient une carte d'identité, qui va venir la vendre à l'industrie qu'on va détruire et on va lui fournir un certificat de destruction qui aujourd'hui permettra à ce monsieur-là que cette carte grise ne pourra pas l'utiliser dans une autre voiture.